asalaamaaleykum ay <laughs> bii paa nag xam nga dama doon jaaxle di waaru di jomi bii paa nag yooyu yëpp defuma ko bii dama ragal dama ragal ba bugga dee dama <laughs> barke roogo yàlla waxe man nag lii nag xaw ma fu ma koy waxee ji ci àdduna ndax xam nga ah ah li ma gën a gën a gën gën a ragal loo mooy ah lu toll ni xaw coronavirus xaw ma feebar bi man sax xaw ma naka lañ koy waxee ci àdduna xaw ma corona roya wax dëgg yàlla bu bu mu agsi bu mu agsi fii daal ah, mbokku yi maa ngi leen di ñaan nag képp koo xam ne nii muy muy médecin yeeg ak képp koo xam ne daal ah xalaat nga ne boo ci defee sa xam-xam du ñëw du ñëw Sénégal bum ñëw ndax dégg naa ne sax jege se nañu de dégg naa ne déggu si na Afrique te wax dëgg yàlla nag wax dëgg yàlla ah ñun xamuñu coronavirus xamuñu coronavirus xaw ma coronavirus xaw ma corona rayaate ah loo xam ne ñun ñii xaw ma Ebola xaw ma dugg si na ci dëkk bi bëggoon naa bëggoon naa dugg si ci dëkk bi rek ñëpp jom yi xeju fii sax waxatuma laa nag léegi nga xam ne mi minute mu rëy la ñu ne xawma ci njugub lañ ko jële ñu ne ñiy jàppoo ci xawma ay mala ñun nag wax dëgg yàlla yooyu daal njuguboo mala yoo buñ agsi buñ agsi ñun xamuñu loolu ñemewuñu ko xamuñu ko léegi nag li ma leen di xamal nag mooy il faut ngeen comprendre buuru Maka yi maka il faut ngeen comprendre seen buur yi ndax wax dëgg yàlla nee nañ ak ren kenn du umra kenn du def dara waaye nag tamitam il faut ñu comprendre leen ndax tamitam ku dugg si yor euh, kii bi di ko jéem a nobbu ba mu wal leen walaale suñu ujaaj yi ñu indi ko Sénégal ñun lay gën a lor kooku nañ leen ñooñu nañ leen comprendre ñun africain la ñuy défendre ndax ñun ñii amuñu doole amu ñu doole feebar bi dañ nañu fagaru fagaru moo gën faju fagaru bi nag mooy ah ñu ne de ah dégg naa de ay di wax man damaa dégg nag wóoruma ndax du ma docteur waaw nee nañ limon bii ah, ak ndox moo xam ne danga ko nugal ba mu xaw a tàng tàngul tàng na ah nga nga nga sa limon tuj sa limon ba ci ba mu kii hmm, nga yëngal ko naan ah nee nañ de moo koy moo koy moo koy aar mooy moo mooy ci yenn feebar yi man nag dëgg yàlla xam naa ne nag ah saako limon li muy mun di jar ci àdduna bi dina ko uuti xaw ma fu mu nekk ci àdduna dina uti limon dinaa uuti limon robinet yi nag buñ tëj ndax ndox moom dinañ koy xel di soxla waaw ndox bu tàng ak limon dinañ koy xel di soxla ak tamitam nañuy raxas suñu loxo yi ba set di sangu ba set mbooloo mi nañ leen fagaru fagaroo gën faju nañuy sangu ba set di raxasu ba set ndax wax dëgg yàlla lu toll ni feebar boo xam ne minute mu rëy la di ngelaw ah, man man de man man nag maa jommi ndax xam naa ne naka lay xel di nokkee nag naka lay xel di nokkee eh am na nag loo xam ne nii mun na koo xaw a baare ñu koy wax ay masque yooyu xaw ma cent franc lay jar xaw ma su ma mbokku joolaa yeeg su ma mbokku tukulóor yi jënd leen ci di seetal di set seetal gox yeeg gox goxaan yeeg kër yeeg suufu eh, suufu lal yeeg yëpp nay set nay set be pare nag ah dinaa leen xamal benn affaire nag eh, fi mu nekk nii gars yi dégg naa ne nag gars yi jënd si yooyu sax mu ngi bugg a manqué waaye nag yéen tamitam eh bu leen nekk nag di jënd di jënd masque yi boo leen ko jëndee loo dem jaayee ko lu seen déedéet nag bay leen loolu. waaw yéen sax dangeen ngeen war di dimbale ñi nga xam ne nii amuñu boo amul ku nekk ak ku dend ak yow am ku dend ak yow amul yow nga am jëndal nga jox ko waaw mu fagaru ndax yow boo boo fagaree sa bopp te fagaroo ko boo feebaree wal ko rek bu feebaree mu wal la bi barke roogo yàlla wax léegi nag man maa ngi dem léegi nag xoolal li moo yeeg affaire ñoom seen yi nga xam ne nii boo ko defee day naturel nga koy naan baax na de jël leen nag limon yeeg yooyu orange yeeg yooyu moo naturel ma xam naa man nag man ngóor wax naa leen li ma leen di wax bàyyi zal xibaar waxaati na leen dee leen fagaru moo gën faju dem naa dem man sax maa ngi dem jaxaaw xam naa ne jaxaaw ngelaw loolu du fa ak si jërë ngeen jëf